voilà donc euh, mbokku téléspectateurs ñu suivre sur la TMS TV ñu ngi fii en direct euh, euh, buntu Pikine maanaam buntu Pikine nag bu ñu fi ñëwee gis ngeen embouteillage bi oto yi ni mu mel ah bon nit ñi vraiment di di bëgg dem Touba ñu fekk ne benn sang mu toog nii nag suñ boo mbokku taalibe waa sëñ bi na nga def. waaw ñu sant bu baax ñu sant sëñ Touba. yow dafa mel ni Touba nga jë jëm nii waaw waaw fa laa bëgg dem nii de. waaw fa laa bëgg dem nii mais doy na waar trop. waaw léegi dañu gis léegi ngay ngay wax ak benn minicar euh, xanaa da ngeen d'accord. non 10 000 la wax. fi ak Touba fi ak Touba 10 000. loolu lool loolu loolu doy na waar sëñ bi doy na waar trop depuis 5 heures du ba léegi maa ngi fi waaw bis yi 7000 la ñuy woote ah transport Sénégal daal doy na waar quoi vraiment war na nañu jàppale ngir yàlla quoi vraiment événement bu amee bala ngay dem am nga sama doom yi dama leen gisal fi ñu toll nii. dem dem nañ dem nañ kenn ku ne 8000 laa la fayal léegi fii léegi man man ma fay 10 000 10 000 moom ko fay doy na waar trop. nañ ñu jàppale ci transport bi transport bi métti na métti na trop trop trop trop ba la ci kaw fee da ngay yéemu ci suñu borom lu ñoo xam ne foofu la ñu fanaan ah doy na waar. waaw léegi yow loo fas yéene def nag. ah ma waaw fas yéene jàpp ci sëñ Touba rek xaar li ma yóbbu xam naa dina ñëw waaye ko sëñ Touba xam naa naa màggali moom bu neexee yàlla moom naa màggali mun naa dund dem dee dem waaw barke sëñ Touba. Euh, taalib mbokku taalib boobu nee na nee na dund dem dee dem kon nag moom ku dogu na fi nii pour dem mais li leer daal mooy Euh, nee nañ paas yi cher na dégg nga nee na Touba ñaari junni lañ ko fayeeku ah loolu nag euh, muy muy loo xam ne nii xaw na xaw na xaw na diis tuuti nag moom nee na yóbbu na njabootam kon na dañuy avancer dem buntu Pikine nag dem xooli foofu ma ne ko dem buntu piki nag dem xooli foofu ma ànd sama caméraman bi euh, mbay fii nga fanaan. foo dëkk. man Bambey. Bambey waaw. ah yow nga jógee Bambey léegi lu tax jaaroo loolu dem nga nga ñëw ba Dakar. fii laa jógee Colobane laa jógee ah Colobane nga jógee. Colobane laa jógee kon fi nga fanaan. waaw mais lu tax nga fanaan fi oto moo amul wala paas yi cher. oto ak paas bu cher rek. waaw. Ah, bokk na ci de. mais yaakaar nga ne daal ci kanam tuuti dina tane. ah incha allah bokk naa ko foog naa ko de. xanaa dina wàññeeku wala mu oto am boog. ñu ñoom paas ñaata la ñuy laaj. fii nii bis yi ay 8000 la ñuy laaj. ay 8000. waaw ay 8000. kii oto yu ndaw yi ay 10000 13000. waaw. kon nag dégg ngeen réaction réaction gars yi waaw. waaw sànq bi na def. maa ngi fi indi la. tur wa tur bi Xaarim Diouf. ah yow moom kenn warul dem nga def fi moom. maa maay borom màggal gi. depuis kañ nga toog fi waa fi maa ngi fi depuis vingt deux heures. ñu ngi fi waaw dix heures ci guddi depuis boobu ba léegi. mënuñoo am oto. booba oto bu ñëw day yokk paas xam nga dix mille francs la ñuy yebee bis yi ah taxi yi ñu ngi yabe quinze mille francs quinze mille francs bis di yebee dix mille francs depuis loolu ñu ngi fi te problème bi mooy bu fekkoon sax da gis oto mais ay benn benn oto ngay gis waaw ba léegi nii nii nag ñu ngi fi nii mais xaw nañu wàññi mais ba tey bis yi ñu ngi yebee huit mille taxi yi di yebee douze mille waaw. waaw ñii sama waa kër lañ samay njaboot lañ waaw mais li ma message bi ma bëgg a jàllale mooy maanaam borom oto yi. yu mel nii bu amatee waaw ku tolli sëñ Touba waaw ku tolli sëñ Touba bu wootee war nañ mën a dawal yërmande mais ñoom boo waxee dañ naan waaw parce que bu ñu ñëw duñ yëpp loolu la ñuy wax de ñoom waaw mais tamit xam nga bu ñu ñëw duñ yàpp parce que da ngay xool yow bu événement amul dara amul Touba 2000 francs mooy paas bi xam kon bu fekkee ne yow da ngay calculer waale paas su retour bi un mois war nga mën a yéegal affaire bi ba 5000 francs quoi waaw mais xam nga wala 10 000 francs tamit loolu c'est trop quoi waaw waaw xel na ko nangu nañ ko yemale mën nañ ko yemale 5000 francs xam nga bu ko defee mu nekk 2500 aller léegi 2500 ñu calculer ko retour bi mais tamit boo ko yëgalee ba 8000 wala 10000 day nduru leneen tamit quoi xam loolu laa bëggoon loolu laa bëggoon jàllale quoi. jàll bu soobee yàlla nga xool ndeysaan njaboot gaa ngi ne lay ah njaboot gaa ngi noonu ah fii nag mooy euh, mooy buntu Pikine waaw euh, ngeen gis euh, embouteillage bi nii mbay ñu avancé dem dem dem dem continuer ngeen gis suñ booy bi booy tafa moom booy tafa chauffeur driver bi <laughs> driver bi xaw ma tey am jàpp na forme wala jàppul forme jàpp nga forme tey. jàpp ma forme de dama dañoo yàq samay nelaw démb si guddi. waaw kon à tout à l'heure kon nag ñu avancé voilà ñu avancé kon nag oto TMS baa ngi noonu ñu avancé xool gars yi ah waaw moom gis nga ko de mbay ma ne ko gis nga de ñii ñëpp sang yi ngeen def ñii ñëpp dañ bugg dem Touba sëñ bi xanaa oto ngeen di xaar ah yéen kay ngeen fi toog. man démb ci guddi laa fi ñëw ay 9h. yow foo dëkk. Castor. Castor depuis démb yaa ngi. démb ay 9h oto moo amul wala paas moom moo. xaw oto moo amul ba na. yéeme na <laughs> yéeme donc continue toujours sur vraiment muy loo xam ne nii moom la ñuy jooytu gis nga ñii di dox ah, ñii di dox ah, di wuti oto. muy nag lu xaw a métti ah. fii nag mooy mooy buntu pikin ah. ngeen gis ngeen gis waaw gis nga sang bi moom kii jonkoon nii ah paas bi yow foo dëkk yow. man Géejawaay laa dëkk waaw. Géejawaay lañ dëkk. yéen yéen fii oto ngeen di xaar. oto la ñuy xaar kay. yéen seen paas dafa matul wala lan. waaw wax dëgg yàlla suñu paas matul moom. matul moom peut-être ah, rek. depuis kañ ngeen fi ñëw. depuis démb démb démb vingt deux heures ba léegi. waaw léegi noo leen def léegi. ah boobu ba léegi ñu ngi dañoo jaaxle fi. kon fi ngeen fanaan toog nii. waaw ba nii gis nga ko nii jommi. carrément jommi nañ wax dëgg yàlla. métti na métti na métti na voilà métti na. ah Sikori nga jëm. ah d'accord ak moto bi. pare nga nii. ah. alors yow mais da ngay jël da nga bëgg a jël client wala. non man du ma jël client non non. Ah, non instant non day diis day diis day diis. waaw day diis. non day diis échange. d'accord nii moom daw ndànk waaw nga daw ndànk na gis na nga sol casque quoi. boo foo gis foofu mu kii nga droité naan café ba egg Touba jàmm si jàmm rek ah. non non duñ jël kenn bàyyi ñu nii rek. waaw gis nga. ah, ah? ba léegi fi lañ fanaan. waaw mais foo leen dëkk. ñun Géejawaay lañ dëkk. mais pass yi moo seer wala oto moo amul. pass yi seer pass yi seer. 8000 13000 15000 15000 15000. dafa métti dafa bilaay. mais sang bi sang bi passé seer wala nu mu demee noonu. passé seer ba oto amut oto yi doyut passé seer na ñëpp a bëgg dem Touba te nag moo ñoo génne oto yi ñu dem Touba nañ génne oto yi ñu dem Touba oto yi bëri wut seer na Macky Sall la tee war a wax xam ne suñ Touba bu xewlee suñ Touba moom senegal bu xew ñëpp a ci war a jàpp moom da cee war a jàpp na ci jàpp lii am na ci cër na ci wax. na ci jàpp parce que lii du yoon fii lañ fanaan yàlla xam na biig ba léegi fii la fi waaw bis 10 bis 10 000 oto bu ndaw 15 000 kenn la du maas du morom amul kenn doo bilaay walaay mamba ma kenn la ak sa papa def loo nga bañ sëñ bi rek euh, xale yooyu ah wax rek mu ne la ah, fanaan ma ko wax rek mu ne la fanaan gis nga ñi ñëpp oto la ñuy xaar pour dem Touba ma ne ko ñi ñëpp mbay oto la ñuy xaar pour dem Touba ah waaw gis nga leen ñooñu di nëbbatu caméra bi la ñuy daw caméra bi meew meew sang bi yow da ngay dem Touba. man damay dem Touba. ban heure nga fi taxaw. man presque fajar man fii laa fanaan. fii nga fanaan. fii laa fanaan foo dëkk. maa ngi dëkk Géejawaay fii rek. ah waaw mais nu mu demee noonu oto dafa amul wala lan. ñoo ci laxas jaan borom oto yi ñoo war a dawal yërmande sëñ bi waxul lii. que yaakaar fii ngoon nañ xaw a wàññi paas pour nit ñi dem. loolu laa yaakaar moo tax ma taxaw fi ba léegi mais bu doon loolu xaar dinaa. ñaata nañ la laaj. instant bi 7000 8000 yabee 5000 oto yi ndaw yi nag. bus yi bus des fois nga gis bu ñëw ne 8000 des fois nga gis bu ñëw ne 9000. cee war a jàpp dañoo war a wuy ji sëñ bi dañ ñoo convoqué de. métti na trop kay. voilà donc du ñàkk nag aussi ñu laaj tamit euh, demande la réaction Mbaye. tu me prends ces du ñàkk aussi ñu laaj la réaction des des des des chauffeurs ba xam ñoom nan lañ ko gisee ñoom tamit pass yi nga xam ne ni ñëpp ngi jaay na dafa cher ah. Hmm? loolu lan waaw bay meen sang bi yéen fi moom naaj bi tàng na di. waaw tàng na mais saa yi nii pexe amul. Ah. démb lañ fi ñëw ay une heure foo dëkk. ñoo ngi dëkk fii ginnaaw raay fii. une heure du matin ba léegi yow. matin ba léegi waaw gis nga. mais nu mu demee noonu. waaw oto amul teg si paas yi seer na ay 8000 la ñuy woote ay 12000 xam nga gars yi ñoo war a jàpp si bagage yi. waaw mais yaakaaru fi ngoon nañ wàññi paas. waaw ñu ngi dundee yaakaar rek ñu l'essentiel moom nañ màggali rek. waaw noonu la wala yéegee baax. noonu la demee incha allah. sëñ Touba dina ci jàpp incha allah jërëjëf voilà donc gis ngeen vraiment nit ñi sonn nañ aussi parce que. koo wax mu ne la fii lañ fanaan ah koo wax mu ne la fii lañ fanaan. franchement. Manako, ko y en a qui la nuit ici. Hein? Hmm? Alors, donc, gis nga ko. Hmm? mbooloo mu takku macha allah taxaw di xaar oto hmm? ma ko mbooloo mu takku taxaw di xaar oto toujours ñu ngi nii di maanaam buntu Pikine buntu Pikine déjà fi mu ne oto sax doo ko gis tu ne vois véhicule hmm? nee oto amul paas yi na dégg yow na def. incha allah. waaw gis nga ñii ñëpp dañ bugg a dem Touba gis nga mbooloo mu takku mi ñëpp dañ bugg a dem te déjà mu ngi naaj actuellement il fait presque dix heures. dix heures du matin gis nga soxna yi toog ñoom tamit ah gis nga ko kii bëggoon ñu filmer ko mu ngi mu ngi nëpp kanam waaw ñaata waaw xaar xaar xaar Eh, Touba ñaata ñetti junni waaw dégg nga ko dégg nga taximaan boobu nee na Touba ñetti juni nee na ñetti juni mbay del voilà toujours ñu ngi fii euh, buntu Pikine alors ci euh, ci reportage biñ leen amal ci oto yi mu xaw a nag doy waar parce que fii déjà mbooloo mu takkoo ngi fi di wut oto nee nañ oto dafa manqué paas dafa cher fii mooy buntu Pikine la mag ay eh, Touba ñaata Touba 8000 waaw dégg nga bis boobu nee na Touba 8000 mais taxawul 8000 mooy junni ak euh, juróom-benn téeméer salaamaaleykum fa la jëm Touba kaay pardon waaw gis nga gis nga gis nga boobu ñoom dañuy dañuy dem Touba nga ne. démb ci ban waxtu. maa ngi fi ñëw démb huit heures. vingt heures huit heures ci guddi. huit heures ci fan nga dëkk yow. man jaareem laa dëkk. ah ñëw fii buntu bi ngeen di fuut sootoo. ndax fu ñu taxaw ñu ne fii duñ fi range. man li ma mënul dégg yow nee nga njaareem nga dëkk njaareem ko yow jege woon nga Touba lu wax nga ñëw fii. fu ñu dem nañ see bon maraicher. waaw dama ne tontu ma ci sama question yow njaareem nga dëkk xanaa da nga ñëwoon Dakar si. man fii liggéeye liggéeyee Dakar gii laay ah, liggéeyee. ah d' accord ah d' accord léegi doon depuis huit heures si huit heures ba tey ñu ngi fi. lan la borom oto yi wax. oto boo laal ñu ne dix mille. Touba di ñaari junni. bu dee njaareem huit mille franc oto yu ndaw yi nga xam ne ne deux mille cinq cent lañ koy rangee fii yooyu ñooy dem njaareem junni. yeneen oto yi sept places yi ñu ne 8000 francs tata yi sax dañuy ramasser 5000 5000 pour dem Touba mu ñu dem see bon maraîcher ñu dàquñu ñu ne da ngay jënd ticket entrée ak ticket sortie péage bi daa seet depuis démb ba tey ñu ngi fi toog mënuñoo fexe ba am oto pour dem Touba. mais yow boo amoon oto oto njaareem di nga ko jël. waaw bañaa jël mais dañoo gisul oto gisuñu oto buñ jël buñ gisee oto kay dañuy dem ndax sëñ Touba ëppal nañu loolu barke Xaadimal Moustapha. waaw ñun sëñ Touba ëppal nañu loolu. am na solo dégg nga ko nee na sëñ ëppal na ëpp ëpp. waaw lii nag moom ngeen gis gis ngeen ko camion la ah mooy euh, camion yu mag yi. moom lañu ñuy wax njëmbat ah, njëmbat bi nag euh, gars yi ñu ngi ci biir xam naa ne dañ leen di laaj ñoom euh, ñaata lañ fee yooyu nañ dem mbay kaay mbay ñëwal mbay ñëwal. gis ngeen gis ngeen. et eh, Touba ñaata. 3000 fii ñu ne 3000 waa gis nga ko ñu ne 3000 mais mais grand wax nga wàcc waaw ñu ne ñu ne ñu ne 3000 gis nga ko ñu ne 3000 la Touba waaye nag dafa mel ni fi fees na moom TMS dafa mel ni fees na mais mais mais lu tax yow coxeur nga eh kaay ana coxeur bi la ngay daw. Touba moo xat. Touba moo xat. waaw mais dañ dañ ne yow yéen yéen ci garage bi. ñun ñoo dañ ne paas dafa cher. waaw paas yi moom dafa seer moom wax dëgg fa yàlla oto yi ah, ci yëm dara yéen tam comme que yéen nekk fi wax dëgg yàlla ah. oto yaa ngi yebe ay 7000 8000 moom wax dëgg fa yàlla nit ñi doomu aadama yi mais am na ñoo xam dañ ne sax 10 000 dix mille am na oto bu fi yab léegi nii léegi la dem ah. barki mais mbooloo mu takku mii nga gis est ce que yaakaar nga ne fii ngoon nañ am oto non ñii moom fii ba guddi moom wax dëgg yàlla ba suba ci fajar heure bi doomu aadama yi dañuy dem ah. waaw magal gi sëñ bi moo woo ñëpp waaw doo leen wax ak oto yi moo ñu xawoon nag dawal yër ma ne waa ci wàññi tuuti parce que nag loolu seet na su kanamee tuuti bu nit ñi wàññee ko oto yi mën naa am ñu wàññi paas bi nag incha allahu rabbi waaw bi waaw dégg ngeen ko ñoom ñoo nekk fii ci garage bi ah dégg nga li wax ci maanaam ci seeraayu oto. Touba 15000 la Touba ñetti junni ah. ku yëg chauffeur bi yow. ah waaw dégg ngeen sang bi de nee na waa mais gars yi dañ nga xam ne Touba dafa seer. Ah, pass bi moo seer. parce que boo amee aller te amul retour. day metti nga yab sol gasoil dem solaat gasoil ñëw dawalaat sa xototo doo ci mën a génn. te oto yi dañuy sol gasoil liggéey bi dafa métti Touba du fii dafa sori Touba du fii ah waaw fay apias ah comme comme comme xéwal yi ngeen di yokk nii loolu baaxul barki ba mu aas yéen Mbàkke Fall loolu baaxul lay tarif la ñuy def xam nga oto bu yeb ñeenti nit la muy yeb bëriwut su yebee quinze mille sol gasoil quinze mille su ñëwaat yebaat di solaat dix mille muy wen cinq mille loolu dafa métti kooku doo ci am dara fay ko sóor bi bëgg a lekk bëgg a naan bëgg a weer si borom oto bi day miti oto bi ñeenti nit bëriwul. Ah, man fii laa fanaan démb la maa fi fii laa fanaan barki yonent yàlla Muhammad a ngi maa ngi fi di liggéey waaw bu fekkoon am retour waaw mën naa yeb 7000 dem paas bi yomb mais ginnaaw da ngay dawal dem te doo am retour day miti waaw li ko waral nag mooy sëriñ bi jaral nañu ko waaw jaral nañu ko ndax bu waroon sunu yéene tamit wax dëgg yàlla. buñ sañoon tey 5000 la ñuy yebee buñ sañoon tey 5000 la ñuy yebee dem waaw buñ sañoon tey 5000 la ñuy dem mais nga dewal oto yóbbu ko Touba mu dem nga dawalaat xoot oto ñibbisi loolu dafa métti ah loolu dafa métti du ngeen xool lañ jaam yi nekkee fii tali bi ñeen ñoo ko si ñeen jël sa paas yóbbu ko ba 15000 8000 ah ay gune ndaw nday Serigne tuuba lu jeex rek ñu tax a jóg jëf jël nag waaye képp ku siy def loo xamante ne waroo kaa def billaay Serigne Touba dina la duma ëllëg Asteera Fall wóor na yàlla jooy naa ko nag bàyyi leen seen yi ngeen a def ngeen a dal naa ay 8000 nangam ak nangam lan la li feer la ñun ñoo ko gën ñun. kon nag maanaam euh, erreur bi yëpp. erreur bi yëpp yëpp yëpp mu ngi ci chauffeur si ndax chauffeur mooy yore oto responsabilité oto boo ñëwee bëgg a liggéeyal sëñ Touba da nga koy wàññi prix yi. mais doo ci laxas jaan Touba. mais dégg nga ñoom li wax nee nañ maanaam bu ñuy ñëw duñ am dara moo tax. d' accord maanaam la laa chauffeur de transport taxi man laa mais am na nu muy demee yenn prix yi jaaduwut jaaduwut dañu ci dawal ngir sëñ Touba dawal yërmande mais am na prix yoo ciy gàcce laa lay wax ni du ah, du la jariñ dara te depuis booba ba léegi nu ngi dem Touba ka ñëw li ñu ciy liggéey jariñu nu dara dégg nga nu defal sëñ bi moo gën. sëñ bi dafa sonnal eh, yàlla ba yàlla fay ko li mu ko fay kon nag ta ñàkk nuy wàññil client yi nanu dawal yërmande nun chauffeur si waaw mais te bañ a topp coxeur yi waaw bu ñu toppee ko yi dara du sotti ñëwal nga xool comportement client yi xool li ngay yabe nga yabe ko dem ci eh, eh, farata sunas Muhammad dem liggéeyal sëñ bi loolu laa gis waaye na dikk topp coxeur yi nu laxas jaan ci euh, affaire yi noo xam nu mu demee nga topp leen itam yow chauffeur bi lépp ci yow la chauffeur bi moo defut li nga xamante ne ni moo ko war man bu ma ñëwee laa lay wax ni fekk client yi taxaw coxeur bi na ma yabeel lii ma xool situation bi par exemple di yab 15000 15000 gisuma kenn yéeg ma wàññi ko nit ñi yéeg ma dem sama yoon puisque fi mu nekk bu yaboon 10 mille wala 12 mille sax boo bu déparé ne heure bi na fekk na mu génn Ndakaaru waaw bu fekkee day dem ak ñëw laa lay wax ni bu duggee bu dem bu duggee Touba day tase ki doon yëpp 15000 day tase ak moom kon nan nañu comprendre. voilà donc dégg ngeen dégg ngeen waaw dégg ngeen sang bi moom moom mu ngi aaru ba léegi vraiment ci ci bi. ah lu ñu waay jaayee lu ñu ko waay jaayee ñu jënd ko waaye ñoom costeurs yi lu ñuy def am teguñu ko fenn di dogaale. waaw mais costeurs yi wala chauffeurs yi la. chauffeurs yi ñun ñëpp a yem. luñ siy dolli ni amul benn njëriñ yàmbaa lañ kaa jënd ji wala sàngara naan ka du la njëriñ dërëm lu jëyee sëriñ Tuubaa moo gën a wóor boo dee ëllëg nga fekk ko fa jërëjëf jërëjëf waaw jërëjëf euh, donc dégg ngeen yi ah vraiment muy maanaam euh, li ñuy wax naan euh, bras de fer la bras de nag boo ko déggee mooy dañuy dañuy dañuy dañuy maanaam jaayante doole chauffeurs yi ak coxeurs yi nee na ñoom dañoo dañoo dañoo complot dañoo complot ah clients yi nag nee nañ vraiment paas dafa cher paas yi cher na chauffeur yi boo waxee ñu ne mënuñ dem di ñëw duñ am client moo tax ñu seeral paas yi ah dégg ngeen nag réaction yi kenn ku di nekk daal dafa mel ni yaa ngi yaa ngi défendre sa position toujours. Euh, dans le cadre de ce reportage que nous sommes en train de vous proposer sur la sur la TMS TV. ba léegi ñu ngi fi bàyyi. depuis démb si ñaakorob lañ jógee depuis démb si guddi ba léegi. lu waral ñoo dem oto yi lu leen neex la ñuy def sëñ bi nag nañ jàppale wax si affaire yi metti na trop. voilà donc euh, alors kooku aussi client la passager la dafa bugg dafa bugg dem ah c'est normal et toujours dans le cadre de ce reportage que nous sommes en train de vous proposer. Vous avez entendu la réaction des, des passagers, des clients qu'ils veulent, qu'ils veulent aller à tout Touba. C'est vrai qu'ils ont parlé euh, du prix exorbitant que les chauffeurs leur ont imposé. Alors, chauffeur la ah wala coxeur xara nit ñi mën a dem Touba daal incha allah. dëgg la la alors vous avez dégg dégg ngeen réaction yooyu toujours. hein, la réaction des, des, clients et passagers. Alors, ils se lancent la balle, chacun de son côté. Les chauffeurs disent qu'ils sont obligés, en tout cas, de demander un certain montant parce que, euh, pour des raisons du retour, mais cela aussi ne rentre pas dans le cadre des intérêts des clients et passagers qu'ils ont balayé de revers de la mai cette thèse comme quoi le prix est exorbitant demander douze mille à quinze mille francs pour aller à Touba c'est du jamais vu. loolu président da du màggal jotee ah mu am ñoom teg ñoo xam dañuy saytu lii nii ndaxte lii du yoon nit ñëpp génn pour bëgg a dem màggale ji yaa ngi dégg ñu jël ay douze mille quinze mille francs te dëkk bi dafa dëgër dëkk bi dafa métti. am na ñoo fi lañ fanaan. waa dégg naa ko yéen fa lañ ñun Pikine lañ jógee am na ñoo xam ne ay géej waay ñii tëngéej lañ jógee mais am na loo xam ne président war na see jël ay matukaay bu baax a baax safar bu nekku si yoon ñu teg ko si yoon voilà merci donc euh, amis téléspectateurs qui nu suivez sur la TMS TV muy reportage bi ñu leen di defal toujours ak euh, maanaam la situation qui prévaut c'est vrai que oto nag daf fi moom pratiquement les les quelques véhicules yi ñu gis laaj leen paas bi dafa cher mbay ñu xool lii ndax dafay dem Touba am déet waaw waaw ah dégg nga kooku nee na 10 000 mbay nañ avancé dem seeti fële ba xam nee na 10 000 de bus boobu. Euh, ñu ngi ñu ngi fii toujours vraiment buntu Pikine nga gis euh, bis bi waaw kii nag moom moo yor oto bi waaw ana mu fees na de léegi mu départ ah. ah d' accord gars yi da def yéen da ngeen dem wala ñii dafa mel dañuy wàcc de ñu ne ngeen toog soxna si lu wax wàcc. waa na def yéen. foo leen jëm ni waaw jumaay fay ngeen ba pare. faye guñu de paas ñaata la. 6000 dafa seer 6000. waaw mais mais am na ñuy laaj ñaari junne a fii. man ñaari junne duma fay. duma fay ñaari junne dafa metti. a ah, ah, sëñ Touba jaru ko. sëñ Touba jaru lu ëpp waaye oto yi dafa metti waaw waaw. waa loolu départ gu leen chauffeur bi nee leen ngeen départ de. fii sëñ Touba jaru fanaan ci talib ba ba set. oto bi bëgg naa dem da koo mënul. xam nga oto bu ak bu mënul ñoom. mais yéen kañ fi toog sax depuis quand. depuis julli ba tay julli fajar ba tey ñu ci dëkk bi. waaw mais am na ñoo mu ngi taxaw fi fanaan fi te amaguñu oto ba léegi ah. dëkk bi dafa metti lii. ñaata ngeen fay nga ne. junni ak ñaata. waaw dafa metti. ça va bien. départ gu leen. loolu di xaar. loo ni xaar. waaw mais yéen yéen au am ngeen oto yéen am ngeen oto mais am ñoo xam ne ba léegi ñu ngi fi amaguñ ah. lii lan la nag. ñun dañu ngi nii bëgg a dem rek demaguñu xanaa oto bi mu dem sax ba léegi ñu ngi toog. gis naa mu tàng de yéen ngeen yéen a ngi ubbi leen veeri xanaa veeri mënu ubbeeku. <laughs> soxna si demagu leen. sonn nañ trop oto yi 10000 ak 12000 ak 8000 ak lu ñu wax ko waaw war am yërmande ci mais lan la chauffeur bi wax. ah chauffeur bi kenn gisagu ko emprunté bi daal lañ gis. amuñu pexe voilà donc vous voyez on est dans un bus qui est là en en stationnement au niveau de la de de, de, de la station d'essence alors ce bus n'a pas encore n'a pas encore pris départ. On aurait dit qu'il y a quelques ennuis techniques. Bon, cela, on va le vérifier. Mais pour le moment, les clients qui sont déjà à bord ont casqué la somme de 6 000 francs pour, euh, pour rallier la ville sainte. waaw dégg nga dégg nga nee na apprenti bi neena na dégg nga apprenti ngeen tey apprenti ah mais apprenti bi nee na ngeen tey waaw dégg nga apprenti bi mbay ñu wàccaat wax dégg nga apprenti bi nee nañ nañ ak dal léegi ñu départ apprenti loolu nga wax. chauffeur bi chauffeur bi si wàllu boppam. la wax. chauffeur bi si wàllu boppam loolu la wax. loolu la wax. day waaw day dem nice. day dem nice. waaw ah, dañuy dem nice. waaw nee nañ oto bi feesagul kon nag dégg ngeen. ah mais est-ce que panne bi garaaw na. ah mais duñ comme bu ñu ñëwee ñu ne ñu huile bi la changé nañ huile ñu ngi toog di xaar. ñu ne waat batterie lañ nañ monté batterie bi taal accéléré. mais ma encaissé guñ la. non non encaissé guñ ko instant bi ñoo moom suñu bopp moom waaw ñu ne bu ñu gisee oto bu ko gën dañuy wàcc dem. <laughs> voilà donc dégg ngeen réaction gars yi kon nag euh, Mbaye defe naa mun nañu mun nañu maintenant rejoindre suñu oto ñun tamit daal di avancer waat ci kanam ah ba ba ñu gis euh, vraiment d'autres réactions gis nga ñii vraiment toog ci station bi vraiment toog di déglu seen ay xasaayit ah. ma ne ko ñii moom ñu ngi toog fii vraiment di wéttali ko ay xasaayit xam naa nag ñi son nañ trop ñii ngay gis ne oto lañuy ñuy xaar dégg nga ndeysaan gis nga ñii yëpp fii toujours bunt Pikine la ñoom ñëpp dañ sonn ñu ngi toog di xaar ñu ngi toog di xaar vraiment. mën nga dem dugg léegi ma jëlaale ñoo sonn. fan nga dëkk yow. man naa ngi Grand Yoff. Grand depuis ban waxtu nga nekk fi ñun ca fajar la ñu fi ñëw ba léegi am nañu fi fanaan sax. waaw fi nga tëdd nii nag. sonn. sonn rek waaw waaw. oto moo amul wala paas seer. paas seer huit mille. huit mille francs waaye sëñ Touba jaral nañu ko. Ah, waaw mais fi nga tëdd nii moom doo dem taxaw ci tali ba xam. sonn mënu ma ko fii laa def damaa foofu la ñu nekkoon moo tax. mais bis bi dañ ne dafay dem. bis bi fees na daa paan. ah dafa paan waaw. kon nag dégg nga dégg nga dégg nga soxna yi nee nañ bi dafa paan mais ñoom daal vraiment ku leen gis ni xam nañu sonn lañ ay jigéen lañ depuis boobu léegi ñu ngi fi tëdd nii ku gis seen toogaay bi rek nga xam nañu vraiment dañoo sonn waaye nag ba léegi ñu ngi am gëm-gëm ak Pastef xam ne incha allahu rabi dinañu dem Touba ndax sëñ Touba bu wootee moom il faut nit ñi wuyu si mu ne. Marème Faye Sall mu dimbali ci ay oto ak ma waa ci ay oto ak ma Macky Sall. waaw ku nekk sa doléance mbay kon nag ñu continuer sang ñu ngi leen di ziar jërëjëf toogaay bi metti na de. na trop xam nga rek màggal gi moom ku nekk danga nga ciy gëm a wut loo xamante ni sa day ëpp la nga daan am te buñ ci dawaloon yërmande mu yomb ci ñëpp bu ñu yàggee ndakaaru kat xam nga ni chauffeur yi ñoo fi yàggal wallaahi ñoo ñu fi yàggal. voilà kon nag mbay euh, mbay mbay kon ñu continuer ñun aussi euh, ci yoon bi aussi dinañ leen réserver yeneen yeneen i yeneen yeneen i reportage ah sur la TMS bi donc vous avez suivi ces images en direct depuis depuis Buntu Pikine Alors donc, euh, on a presque bouclé une partie de ce reportage. mu muy nag reportage boo xam ne nii diggante diggante waaw gis ngeen gis ngeen gis ngeen gars yi mbay defe naa gars yi lañ jëloon de ah waaw gis nga leen noonu ñuy dem nañ leen topp mbay ñu topp leen ndànk-ndànk waaw ah Moustapha aca ubbil ñu dem aca mbay voilà kon nag ñu ñu ñu ñu ñu continuer dem